soxna yi tey ma am aussi invité bu exceptionnel une grande dame muy ki nga xamante ne nekkoon na fi Elimaanu Jëwrin nekk fi aussi ki nga xamante ne moom mooy garde des sceaux maanaam lépp lu soxal wàllu justice ñu dénk ko ko muy soxna Aminata Touré nekkoon député jamono ji mu jiite ab mouvement bu ñu dippee Mimi tey ñu nar a waxtaan ak moom ci bés aussi bu symbolique li ko waral yeneen soxna nekk ay doomu Sénégal bañ nooteel ba wàññi li nga xamante ne moom mooy seen bakken maanaam ju bésu talaatay ndeer c'était le 7 mars 1819 loolu la waral tey ñu war a fàttaliku yooyu soxna ànd ci nag cette fois-ci ak ki nga xamante ne tey moom mooy suñ invité ñu war a dellu siwaat ki nga xamante ne moom mooy parcours am jaar-jaaram jamono ji fi nga xamante ne moom la nekk ci wàllu l'opposition bi taxawaayam rawatina baatu askan wi nga xamante ne mbébét na ko taataan ci atum 2024 ngeen xam personnage bi ce soir vous allez découvrir la personne kan mooy soxna Aminata toure tey loolu la ñu nar a waxtaanee ci seen biir émission bu yees si près si loin di célébrer di tatagal ay jigéen yoo xamante ne aussi dañoo ñàkkoon seen bakken le 7 mars 1819 duma def lu dul d'ailleurs bàyyi leen nga découvrir arrivé fii ci sa beau cadre de l'hôtel Colonia bu ko defee ñu daal di tàmbali laajteeg tontu yi allez c'est parti mbokki xarit yi ginnaaw ni ma leen ko waxee woon bi ñu leen nuyuwaatee tatagal leen ci tàmm gi ngeen tàmm suñuy programme tey ma am mbégte à contenté dalal fii Aminata Touré ancien premier ministre moo jamono ji nag mu jiite mouvement bi nga xamante ne moom mooy euh, Mimi euh, comprenez mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance mu nekk numéro bu exceptionnel pour une personne aussi exceptionnelle ndax dañu nekk ci weer boo xamante ne dañuy tatagal sargal li nga xamante ne moom mooy jigéen tey nag ma am lool mbégte ak contenté war a ak moom waxtaan nar a ñëwaat largement ci li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaram parcours am vous connaissez le personnage cette fois-ci vous la personne wala ñu tàmbale nag laajeeg tontu yi dama koy bàyyi moom aussi mu nuyu ak téléspectateurs yi FM euh, c'est un plaisir un honneur une fierté de vous recevoir tey ce soir waaw ñu ngi lay sant bu baax aussi ci invitation bi mhm. euh, di nuyu vraiment ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Euh, am spécial nuyoo nag boo xam ne jigéen ñi laa ko jagleel mu mhm. ne jigéen ñi nag mooy mag ñi ba ci jagamaar yi ba ci jeeg ji ba ci xale yu jigéen ñi mhm. Eh, ndax émission bi li ko waral mooy 8 mars bi. kon seen bés la ñoom it maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sargal. waaye du ñu fàtte mukk aussi sunu sunu càmmiñ yeeg sunu borom kër yeek sunu doom yi. ndax noonu la ànd ci société bi. absolument alors PM dañu koy tàmbali ak. Euh, sànq maa ngi koy wax à l'entame de mes propos yaa ngi gane si àdduna fi nga xamante ne moom mooy dakaar waaye Tamba nga màggee ba ñu doon wax un ci année yooyu cest à Sénégal am indépendance am rek ñaari at nga gane si àdduna yan souvenir nga am jamono yooyu waaw man nag euh, booy seet euh, dëkk naa ci béréb yu bare bare bare ndax euh, ndakaaru la la laa gane ganese àdduna mais su may wayjur son soo soo bàyyi moom docteur la woon médecin sama yaay doonoon sage femme amoon jamono joo xam ne ñoom ñu ngi woon France yóbbaale seen njaboot euh, son papa dafa doon def ay spécialisation euh, après nag bi nu ñibbisee euh, boobu lu ndaw lañu dañu jógee France rek dal di directement dem Tambacounda booba booy dem Tamba daanaka boo génnee Kaolack rek piste la woon ba Tambacounda ñaare sax train lañ daan jël saxaar d'accord voilà donc xëy na looloo indi aussi sama capacité d'adaptation ndax euh, France ba Tamba ca jamono jooju. <laughs> changement amoon na. absolument waaye voilà li ma ci fàttaliku vraiment euh, euh, souvenir yu rafet laa ci am. Mhm. parce que ba ñu demee it aussi ca booba jamono école publique la nit ñi daan dem nekkoon école publique régionale léegi Baatu Jaara lañ ko tuddee donc fa laa defee école primaire yëpp ba ba boobu nag amul woon amul lycée. voilà parce que euh, soixante onze soixante douze ci laa ñëwee nag euh, ba soixante quatorze sax euh, defee si sixième Gaston Berger. à Kaolack voilà parce que foofu la suma sama ñoom. donc ci moom lañ ne woon. Mhm. pendant que sama yaay ak suma papa ñoom ña ngi doon continuer di servir Tambacounda parce que ay fonctionnaires lañ woon. ma def fa en euh, ensuite nag ñu affecté son papa mu nekk euh, chef du service d'hygiène euh, bu Ndakaaru ensuite nag ma def sixième ba terminale lycée Van Vollenhoven mhm. moom moo tudd léegi lycée Lamine Gueye Lamine Gueye d'accord voilà donc bougé nañ fu bare bare daal léegi dañuy ñëw ba léegi ci étape bu Tamba bi parce que je me rappelle il y a un à deux ans ma dalaloon fii docteur Kassé benn cancérologue muy fàttaliku nee na liggéey bi nga xamante ne sa waajur wu góor jamono yooyu mi ngi ko doon liggéey auprès de la population. foofu noonu à Tamba. parce que ñooñ dañ doon jàng comme vous nee na ba sixième. Mhm. après ils étaient obligés jóge fa. Mhm. dem fi nga xamante ne moom mooy Saint-Louis. pour nga xamante ne moom mooy seen cycle secondaire. Mhm. dafay andi ma wan la photo bi. <laughs> waaw waaw kan la. photo bi suma suma papa la. Euh, Eh, ki nga xam ne nag mooy xool ci suuf noonu <laughs> man mii la ak eh, suma mag bu góor bi nga xam ne moom moom ma mag ñaari at voilà bii nag mooy li may wax boobu ba France la nekk d'accord voilà nekk nekk Bordeaux di fa jàng eh, di fa yokkaat jàngam parce que moom ci seen jamono tubaab yi dañ leen tudde woon médecin africain boo defaan médecine quatre ans rek ñu ne la jeex nag mënoo continuer ñoom nag ñu koy xeex mhm. yàlla def nag moom bi ñu dindee loolu Euh, fekk na am na njaboot mu delluwaat France pour def voilà euh, cycle médecin huit ans ak spécialité parce que moom pédiatre la woon. daan faj xale yi xale yi. Mhm. donc mu doon ku vraiment ku ku ku nangu woon a liggéey xëy na ci moom la ñuy jànge liggéey sama yaay tamit doo doon sage-femme. Mhm. Euh, foofa ca Tamba. daanaka ñoom ñoo remplacé woon tubaab yi fa nekkoon ca ca année yooyu xam nga indépendance soriwul woon. Mhm. Euh, voilà et puis dañ daan ñëw sax ba ca kër ga parce que benn médecin boo xam ne bi diggante pratiquement Koungheul ba Bakel Bakel ba Goudiri Goudiri ba Kédougou benn docteur ci amoon te il paraît il se ci localité yu yu bëri te jamono jooju nekkul comme nii euh, accessibilité yenn localité yaa ngi koy wax c'était très très difficile yan souvenir ngay ngay ngay ngay fàttaliku ci sa waajur bu góor ah def naa ne ku ku ku amoon euh, euh, voilà euh, volonté jàppale doomu aadama mais médecin la woon. Mhm. donc docteur moom fokk nga nangu loolu day fekk nga mu nekk sa li tubaab naan vocation. sama yaay tamit réewle na voilà ñu bare bare bare. Mhm. <laughs> yaa ngi wax Kassé moom waaye rakkam mooy Mamadou Kassé. mooy suñu DG defe mhm. naa ne. <laughs> suñuy nopp moom it euh, voilà dem naa sama yaay ci ñi ko teeru si àddina. àdduna <laughs> la bokk tout à l'heure vous parliez de votre maman dama lay wanaale parce que moom aussi elle était sage-femme mais bii dañ la gis dafa mel ne da nga doon suy ses pouces de période. waaw loolu la woon nag xaw xaw naa yàgg ak moom sax <laughs> dem naa ne la ma mujj def mooy undi uti bandage bandal ko sama bopp pour pour a. ah yow yaa ko waaw parce que quand même euh, kooku ci ah yàlla moom. Eh, wàcc na liggéey il y trois ans. oui moom it sage-femme la woon bu. Mm-hmm. voilà donc man ci famille bi ñu ma yare mm-hmm. eh, liggéey daf ci amoon solo ak ak voilà nangoo jàppale doomu aadama yi eh, xam nga santé moom ci loolu lay doon. Mm-hmm. voilà donc exemple exemple boobu boo ko amee da koy moo lay ci ci loolu lañ lay yare daal maanaam li ëpp solo ci yow mooy ngay liggéey. gëm liggéey gëm liggéey da cee am solo ndax loolu noonu loolu laa gis ci samay waajur mhm. euh, après euh, voilà boo màggee it bëgg a def lu ni mel surtout def loo xam ne lii mën nga jàppale doomu aadama euh, ensuite nag ci la politique bi yegg si ñaar ñi dal di ànd voilà sunu buñ daan politique ñun à l'époque liñ daan tuddee la gauche mhm. la nga ca doon ut mooy vraiment doomu aadama gën a gën a jëm kanam voilà nanuy dundee gën a baax euh, voilà mu indil ñu nag ay tolof tolof souvent aussi d'accord alors balaa ñuy ñëw ci militantisme bi damay ñëw ci élève bi parce que bu muy euh, def ay recherche ci sa parcours euh, dañ la doon qualifier élève très brillante c'est vrai normalement moment boobu c'est vrai say waajur jàng nañ donc xëy na peut-être ñu bàyyi la école mais c'était pas aussi facile parce que aussi dañu nekk ci weeru sargal jigéen te dafa am ay barrières yu bëri yu metti yoo xamante ne dafay dal ci rawatina tout tout tout tout tànk yi bo bo boo ñuy nettali ci say ci say souvenir à l'école moment boobu passage bi depuis Tamba ak euh, fi nga xamante ne moom mooy Kaolack ba lycée Van Vollenhoven balaa ñuy ñëw nag parce que dina ñëw ci sport bi mais aussi dina ñëw ci sa militantisme mais souvenir yi lan nga ñu si mën a wax PM. waaw mën naa jàpp ne man xëy na ci liñ naan. privilégié yi laa bokkoon nag ni ko ni nga ko waxee. Mhm. sama yaay jàngoon na ak son papa donc dañuy xam valeur u jàng école. Euh, nga des école kenn du la teel a maye ak yu ni mel. Mhm. mais bëri naa ñu ma bokkaloon classe ñoo xam ne macha allah seen xel euh, vraiment neexoon na lool lool lool. mais xëy na amuñu woon encadrement ba ca kër ga. Euh, mais surtout aussi ci njàngu jigéen man ci li ma ci jàpp sa papa jàppale la dafa am solo. d'accord lool lool lool xam nga bu njëkk ba dañ naan wax voilà xale bu jigéen foog mu mun togg foog mu mun raxas foog mu mun bale mhm. bu ko defee sa yaay ci yooyu la lay gën a sonale mhm. te boo defee loolu ba noppi nag après doo am dem jàngi pour réviser pour ak yu ni mel donc papa ji bu ci dugalee loxoom rek di encourager vraiment xale yu jigéen ñi euh, da ciy am solo man sama papa nag ku gëmoon aussi njàngu jigéen la woon mhm. bon yàlla dafa def nag ay jigéen la gën a am d'accord <laughs> voilà Eh, am na am na juróom-ñeenti bant te ñaari ñaan ñaar ñoo ciy góor. d'accord waaye eh, macha allah ñëpp ñëpp jàng nañu. Mhm. Eh, ba mën a yor seen njaboot. donc li nga xam ne moom laa ci gis ne moo am solo mooy pàpp yi aussi vraiment ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale seen doom yu jigéen ñi. yaay yi aussi bien sûr. Mhm. yaay ji bien sûr. mais papa ji aussi comme yu ci bëri moo koy dogal ca kër ga aussi. Mhm. voilà di fexe ba xale bu jigéen bi am temps boo xam ne voilà Euh, dina ko mën a consacrer voilà am na am na ci solo lool mhm. lool et puis bàyyi leen encadrer leen gën leen euh, fital euh, xale bu jigéen papa ma koy may fit en fait d'accord man dama rappel sama papa toujours bu daan wax mais góor ñi gënuñ ëppuñ leen xel ah, xel moom ah oui oui da doon wax ne góor ah, du affaire góor wala jigéen cerveau bu jigéen ak cerveau bu góor benn lañu voilà donc ça dépend rek jom bi nga ciy def ak effort yi xam bu ñu la koy wax fekk nga tuuti day tax nga booy màgg booy màgg da ngay ñeme. après ngay avancer dem ci classe yi. Mhm. di góor di raw góor ñi góor ñi di la raw aussi. nga mhm. xam ne du affaire góor wala affaire jigéen. voilà donc loolu it am na am na solo bu baax a baax a baax. ci ñi nga xam ne dañ yor njaboot gu jigéen. Mhm. Euh, voilà jàppale sa doom bu jigéen boo dee borom kër dafa am dafa am solo te nag souvent booy seet aussi. jigéen ñi seen papa sax la ñuy gën a la gën a jege mhm. ndax souvent mère yi aussi ñooy sonal jigéen ñi ndax dañuy bëgg aussi ñu jub uh-huh. voilà du ñu bëgg aussi yenn yi dal leen euh, donc loolu it am na am na solo waaye li ma gis ci génération bu bees bi aussi mooy mooy papa yi gën nañoo ouvert xam nga bu yàgg bu njëkk ba nag da nga daan ragal sa waajur. voilà mais léegi xale yi gis naa ne gën nañu ubbeeku gën nañu dinañuy gën a waxtaan ak seen njaboot. Mhm. Eh, ñu nit noonu lañ daan waxtaanee ak eh, voilà sunu sunu. say waajur suñuy waajur waaw. alors boo may wax ci sa caractère lan nga hérité de votre maman lan lay nekk. ah eh, soxna si moom it ku amoon kii la. ku mhm. amoon fulla la nag quand Euh, voilà euh, mais aussi defe naa ne ku bëggoon a dimbale doomu aadama aadama la woon. cette générosité. voilà euh, enfin bon kenn <laughs> doo tagg sa bopp waaye <laughs> bon lu nu am it dinañ ko jéem a bokk ak voilà askan bi loolu aussi ci moom ci moom lañ ko gisee ak ci sunu ay mam surtout man suma mam bu góor ñu naan ko Doudou Touré. Mm-hmm. moo doon chef de quartier cent à Gossas. fa jógee Kaolack ñëw Gossas installé wu parce que traitant gerte la woon euh, dem ba nekk fa chef de quartier mooy quartier bi nga xam ne fa la mairie bi nekk. d'accord voilà da daan accueillir xale yi daan jóge ci dëkk yu ndaw yi euh, parce que bu ñu xasaan ba am entrée en sixième du ñu am collège boobu sax kenn du wax lycée. bu ko defee moom dafa amoon voilà batiment boo xam ne ñoom la ko jagleeloon. di leen fa dalal voilà di leen fa dalal daan noonu ne nekk ay vingt trente. Mhm, mhm. voilà bu vacances jotee ñu ñibbi mais moom moo leen yoroon. kon boo gisee loolu aussi da xam ne bon euh, àddina aussi jàppalante fi am voilà doore ko ci sama maam boobu ak euh, wàcc aussi ba ci parents yi. d'accord voilà loolu nag ñu ngi koy xaw a perdre léegi bon léegi àddina. changé comment moo changé aussi. waaye loolu en tant que euh, africain waruñ koo te waruñu voilà waruñ ko waruñoo réer. Mhm. jàngal xale yi solidarité jàngal leen ne aussi wërsëg yàllaa koy joxe. Euh, yenn saa yi nga ëpp wërsëg keneen. Mhm. Euh, par exemple boo juddee kër docteur. <laughs> kooku du ci sa coobare. sa chance la. Mhm. voilà ka juddoo ca kër béykat ba euh, xëy na ay waajuram du ñu am moyens yi nga am kon bu ngeen dajee war ngeen voilà am solidarité seen biir ak yu ni mel te ka juddoo ca kër béykat ba am na qualité yoo xam ne ka juddoo aussi kër docteur ba xëy na du ko am. <laughs> voilà c'est mhm. toujours comme ça parce que du rek une affaire matérielle. Euh, donc loolu euh, defe naa ne ci li ñu euh, ci li ñu am xëy na li ma li ma jëlul ci sama papa. mooy nga xam ne c'était sa force. mooy la patience. ah vous n'êtes pas patient. si si si un peu mais bon <laughs> lui c'était un homme très patient. d'accord très très c'était sa grande grande grande qualité. qualité. waaw kooku nag moom xam naa ne dinaa ci gën a inspiré wu. ndax évidemment li wolof naan. ndar xëyul sotti. Mhm. patience daf ci baax. Mhm. mais xëy na bo foofu la ñu bokkewul tempérament. yéen ñaar voilà. d' accord alors maa ngi koy wax yaa ngi jàng balaa ngay dem euh, France fi nga xamante ne moom mooy Dijon mais avant loolu il faut ñu ñëw parce que vous étiez aussi très sport parce que da nga doon pratiquer mais dama la doon gis aussi ngay pratiquer li nga xamante ne moom mooy football. moment boobu ak <laughs> stéréotype yi parce que on parle du Sénégal juste après les indépendances. ah non un peu plus quand même. Hein, oui parce que disons. Euh, def na peut-être waaw, vingt ans après. oui euh, dix-huit vingt ans dix-huit vingt ans après. oui waaw les indépendants nga nga ngay def football. waaw waaw mais Sénégal nag aussi euh, dëkk bu xaw a avancé la woon. bii sax moom photo bii moom boobu athlétisme lay def. parce que nekkoon naa équipe nationale athlétisme. d'accord voilà nekkoon naa champion universitaire cent deux cent mètres. Mm-hmm. mais football mu ngi ñëwee rek ne ca koñ ci benn koñ. Euh, ak les voilà say morom yi ak yu ni mel euh, après bo voilà nga bokk ci donc yàgg naa aussi di jaxasoo góor ñi. Ah. voilà su ko defee nag doo amati complexe en fait. d'accord loolu dafa am solo ci ci jigéen ñi ñuy jaxasoo góor ñi yenn saa yi nga mën leen. Euh, surtout bu ngeen nekkee xale nga xam ne masse musculaire bi du am différence. Mm-hmm. ak yu ni mel bon jouer ci les gazelles. ndeysaan ñu ngi nuyu njabootu Elliot Xuma moo doon suñu entraîneur. Mm-hmm. moom it wàcc na liggéey il y a 4 5 ans. Euh, y avait des yu fa nekk je me rappelle ñoom euh, Badji moo doon suñu góol euh, voilà Mary moo doon suñu attaquante euh, ndeysaan dem si yàlla euh, Tabouré ak euh, ak ñeneen jàll. amoon nañ sax benn xarit bu ñu doon tuddee Beck lañ ko doon tuddee parce que Beckenbauer lañ ko doon ah, tooñee. parce qu'elle jouait bien <laughs> Euh, Simone la tudd ba ñuy fàtte sax turam. donc tout ça aussi c'était notre enfance. ban poste nga doon évoluer. ah défenseur <laughs> xaw a niru ci li mu daan def ci politique d'ailleurs. oui oui <laughs> su ma camp bu ma ci nekkee. dama koy dama koy défendre na foofu laa ko jëlee aussi. d'accord mais euh, ensuite aussi def yeneen sport. basketball euh, basket e euh, ngi basketté surtout université ma nekke bi nga France. France mais mhm. avant may dem France comme. Euh, comme euh, euh, lycéenne. Mhm. volleyball ak judo. parce que dem naa ba nekk euh, ceinture marron de judo. ah oui waaw ah, doon compétir sax en France bi ma demee nag ci benn compétition la sama sama loxo damm ca la bay mais ku bëri woon activité la woon. ak aussi un peu de natation daan naa fay aussi. loolu nag laa dese léegi. ba léegi oh, pour maintenir la forme voilà, d'accord alors loolu dinañ si dinañ si ñëwaat euh, mais ci wàllu sport bi ba léegi yaa ngi koy wax plusieurs disciplines sportives parce que jamono yooyu aussi temps temps boobu Sénégal da nga doon gis élèves yi di pratiquer plusieurs disciplines sportives euh, mais aussi à côté yaa ngi tàmbali aussi ce militantisme très tôt qu'est-ce qui vous a inspiré parce qu'on parle de presque ay 14 ans balaa même ngay am quinze ans hmm. waaw circonstance lay doon toujours ci jamono jooju dafa amoon euh, àddina bi sax dafa dafa politique woon mhm. ñi far ak États-Unis bloc de l'Ouest euh, ak européens yi ñi far ak yi ak chinois yi loolu da doon wàcc ba ci euh, climat politique gu dëkk yi au niveau du des lycées ak yu ni mel mais surtout man suma benn professeur la professeur Ismaïla Diagne maa ngi koy nuyu di ko voilà di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér. amiin moom nekk na fi proviseur. d'accord eh, moom moo ñu doon jàngal l'histoire aussi des révolution à l'époque ngay ngay ngay ngay déglu lu tax nit ñi daan jóg di xeex lu warul a am injustice ak yu ni mel. après mu mu mu mu passionné ma nag may dem di def samay propre recherche eh, ak yu mel noonu mm. nga commencé dugg ci. les les groupes ouais. les petits groupes politiques à l'époque au lycée au foyer euh, ensuite su ma mag ki nga ki nga gis noonu ci photo bi moomu aussi am na courant politique bu mu bokkoon dadaal indi ay ay journaux à la maison ko defee ma koy lire ak yu ni mel euh, bi ñu demee université nag xam nga foofu en France ouais. c'est plus organisé et puis bon foofu nag nag Euh, la suma militantisme politique gën a gën a accéléré woo ngay jàng di côtoyer aussi mm -hmm. des responsables politiques ouais. Euh, par exemple euh, bi may nekk étudiant Lula mii ñu falaatoon benn benn au Brésil voilà daan nañ ñëw en France ci benn organisation bon ñun on était les tout jeunes ouais. mais première fois bi ma koy gis foofu laa ko gis boobu maa ngi peut-être deuxième année de fac boobu leader syndical bu mag la woon d'accord voilà et puis ensuite il a continué sa carrière fa nekk président mais boobu syndicaliste rek la sax nekkagul woon eh, politicien au Brésil. d'accord voilà. donc loolu moo tax nga choisir la gauche léegi nag fii ci Sénégal amoon na fi ay leaders. mënuñu bañ a wax li nga xamante ne moom mooy sa passage euh, fu ci mel ni ligue communiste des des des <laughs> def nga say recherche de bu baax sax <laughs> waaw moom mooy li ma la wax looloo fa amoon. mais xam nga mouvement boobu euh, mu ngi bokkoon ci li naan la quatrième internationale quatrième internationale ñoom ni ñu gisee àddina mooy munoo changer mbir yi rek ci benn dëkk foog nga changer ko ci àddina bi yëpp pour euh, condition yi ñi amul doole euh, mën a évoluer ni nga ko bëggee d'accord voilà ñoom c'était des internationalistes mais booy seet sax histoire mujj na leen a jox dëgg ak aujourd'hui li ñuy wax la mondialisation la globalisation mhm. ñoom booy seet gisoon nañ ko ca njëlbeen waaw euh, donc euh, loolu it bokkoon na ci lu mu attiré parce que voilà ku ku amoon euh, ku dénkumpa laa woon aussi ci wàllu ni àddina di doxee ak nu ñu mën a fexe daal ba nit ñi gën a yem cest à eh, justice ak injustice dafa mus doon lu ma dafa mus nekk sa combat voilà donc ki njëkk a gi ubbi suñuy bët voilà suñu professeur histoire géo la woon mhm. Ismaïla Diagne ensuite nag euh, voilà ñuy liiral suñu bopp bokk ci organisation étudiante yi ak yu ba am ci suñu formation bopp d'accord voilà bi ñu ñibbisee nekk ni nga ko waxee LCT parce que ñooñu lañ nekkaloon France nekk étudiant bi ñu ñëwee mais après très rapidement après donc naturellement lorsque vous êtes revenu au Sénégal ngeen continué waat et puis ensuite nag ma milité ci parti Mamadou Dia d'accord eh, voilà Mamadou Dia bi ñu koy jàpp boobu ci lay gane si àdduna xam nga. oui 1962 donc. Mhm. Euh, maa doon daanaka seen seen voilà <laughs> seen doom laa woon seen biir. Mhm. mais ma jàng ci aussi lu bare bare ci ñoom parce que nekkoon nañu ay homme d'état ku mel ni di Diagne ku mel ni Idrissa Ndiaye Joola. Mhm. Euh, voilà moom ci boppam. président Mamadou Dia ak soxnaam mm-hmm. Oulimata Dia mi wàcc liggéey il y deux ans mm-hmm. mooy yaayu Dior joor mm-hmm. euh, magistrat Dior Fall ah. euh, donc euh, voilà ma am chance aussi dajeek ñoo xam ne ñi jàng naa ci ñoom président Mamadou ja par exemple dam leen daan déglu ñoom ñëpp li ci li ci li ci li ciy doy mooy lañ doon waxtaanee yu bëri dama koy gisaat ba tey. ba léegi ci seen politique bi waaw. mais lan moo la lan moo la ci cet la là Mamadou Dia parce que dama lay wanaale aussi beneen euh, photo <laughs> euh, ñu ko doon surnommé le le le Maodo. le euh, un, grand monsieur. mais mais mais lan lan moo la marqué woon ci moom ba nga ba nga adhéré ci parti MSU. li ma marqué woon mooy nationalisme bëggu réew mi. d'accord loolu parce que lire naa ko aussi. déglu naa ko euh, bëggoon réewam ak ak résilience am parce que tëj nañ ko douze ans de kaso mhm. ci loo xam ne dañ ko tooñ euh, atte ko ñàkkal prisonnier politique la woon reyul nit deful leneen douze ans mu génn euh, continuer engagement am te boobu commencé woon na mag te aussi ba may jàng école boobu boobu ma nga ca kaso Kédougou bi boobu xaw ma ko woon bien mm-hmm. sûr mais sama papa xamoon na ko parce que sama mm-hmm. papa moo doon médecin chef région boobu yëpp région euh, Sénégal oriental la woon donc nee naal da dem ba Kédougou boobu ñu ko emprisonné woon Kédougou mu def ay rapport yu bari parce que loolu aussi après lañ ko xam pour ñu mun koo indi Dakar pour faj ay bëtam à l'époque gouvernement Senghor bañ ba noonu la silmaxa waaye ba mu génnee aussi continuer combat am di bind ay livres loolu lu ma impressionné la woon ndax euh, euh, am na voilà euh, situation yoo xam ne boo ci duggee yàlla rek a lay jàppale pour nga mm. continuer am am dëgër laay loolu am force morale bi surtout am gëm ngëm gi cette conviction ku gëm voilà ku gëm yàlla la mm-hmm. am cette conviction c'était un très grand homme très grand homme bi ñu ko tuddee building bi kontaan naa ci waroon nañ ko tuddee aussi yeneen parce que man mi ko xamoon Euh, nekkoon ci intimité de sa vie parce que après daanaka doomam laa woon. Mhm. Euh, <laughs> daan naa fa dem très souvent soxnaam nekkoon aussi suma xarit mooy yaay Ibou Fall. Mhm. seen collègue journaliste. juste oui voilà mhm. soxna su mag aussi. Euh, yal na yàlla xaare leen àjjana. amiin amiin donc chance boobu am naa ko. du du du ku nekkee am chance boobu aussi waaye ñoo xam ne ñi exercer nañu les plus hautes fonctions nga leen di déglu di jël seen conseil Euh, di xam aussi noo war a taxawee euh, bu la yàlla tegee ci yenn yenn situation yi ñoom ñëpp ba ñuy dem yóbbaale wuñ ay milliards duñu woon ay milliardaires mais ñu servir seen réew la ku prenne li président Mamadou Dia euh, ak ak ñi ci des ñoom ñëpp d'ailleurs d'accord alors may fàttali ñu ñuy seetaan ne moment boobu aussi bi nga dellusee yaa ngi liggéey parce que yaa ngi ci société bu mel ni fi nga xamante ne moom mooy Sotrac jamono ji muy dakaar dem dikk nga nekk responsable marketing continuer li nga xamante ne moom mooy sa militantisme donc politique du ne guleet rek c'est-à-dire euh, du l'actuel pouvoir moo la dugal ci li nga xamante ne moom mooy politique mais dama gis entre-temps da nga changé fi nga xamante ne moom mooy jóge MSU nekk cette fois-ci la directrice de campagne de Landing Savané dans les années 92 93 ñu jëm ci présidentielle mm-hmm. pourquoi And Jëf mais parce que dabor abord changé wu parce que bi may nekk directrice de campagne Landing Savané maa ngi koy nuyu. Mhm. tamit euh, ak njabootam. moom it yàlla na ko fi yàlla bàyyi lu yàgg te mu ànd ak mhm. boobu MSU la nekk dañ nekkoon ci coalition. ci coalition d' accord. voilà ci coalition la woon. après nag laa ko laa laa dem euh, laa dem ànd jëf. Mhm. mais sinon ci coalition la ñu nekkoon. Euh, ensemble man ma nekk militante MSU. nekk directrice de campagne de de Landing Savané donc. esprit coalition yàgg na yàgg na Sénégal après nag la milité la milité and jëf andi jëf voilà d'accord dafay andi ma wan la photo bi ban ban souvenir la lay la lay la lay rappeler ak ban ban occasion ngeen ko jëloon lii def naa suñu université d'hivernage la woon d'accord université à andi jëf voilà à andi université voilà du parti mhm. euh, moo nekk nii euh, kii kaw aussi suñu benn responsable la voilà ni nga ko gisee booba jeune ci fin vingtaine vingt huit def naa lay war a am vingt neuf jëm trente mhm. donc yàgg naa yëngu ci affaire tout ce qui lépp loo xam ne li daal ci wàllu ni suñu réew di doxe eh, dafa ma doon intéressé alors euh, bu ñuy wax jamono jooju hmm. euh, parti socialiste dafa nekkoon ku am doole nekk ci pouvoir bi yéen ngeen nekk ci fi nga xamante ne moom mooy ànd jëf di militer nag ci ay conditions yu metti yu yu yu difficile moment boobu qu'est-ce qui vous faisait tenir. conviction conviction man moom laa mos dafa yàgg ci man parce que xam nga li ñuy wax 30 ba tey daanaka <laughs> voilà ma am at yi maam am. Mm-hmm. Euh, conviction ma mos a soxal te booba. bon am naa taxawaay bi am naa xam-xam bi su ma demoon parti socialiste def naa naa fa def carrière bu dee carrière rek laa doon wut ak luy sama intérêt bopp mais looloo lay looloo lay jàpp am na benn maire boo xam ne maireu APR la Euh, xam naa ne dina xàmme boppam. Mhm. moom bokkoon nañ ci mouvement yi euh, moom dañ ko jàpp mu def un an ci ci ci ci prison bi moom dañ ko am emprisonné c'est peut-être le seul maire de la paire bu am ce parcours la fa la defee concours am ca biir prison ba ah, de ca biir prison ba la defee mhm. concours am ba nekk inspecteur de la jeunesse ba def carrière am après ba mu génnee ñu affecté ko pour vous dire aussi que sax même ni état daan comporté woon amoon na ci aussi vraiment lu ñu mën a saluer parce que nga jël opposant bu jeune yóbbu ko ci prison tëj ko fa un an pour activité subversive tojul yàqul mais temps boobu noonu la woon pour mhm. wax la rek ni mu méttee ca prison ba lañ ko escorté bu def def defi concours am réussir concours ba génn bi mu paree penam ñu affecté ko quand même voilà li may wax euh, voilà ku mel ni Euh, voilà ministre Mbagnick Mbagnick Ndiaye xam na li may wax. parce benn ci suñu maire yi du Mbagnick Ndiaye ci boppam. parce que Mbagnick Ndiaye nekkoon na chef kooku. Hmm, voilà voilà c'est un de un des maires de un de maires de l'APR juste pour wax la ni ni ni jamono jooju euh, ne militantisme yombuloon dañ da ngay génn grève voilà ñu jëflanteeg yow ci yu méttee méttee méttee méttee métti ah mm-hmm. euh, c'était pas facile voilà du woon du yombuloon par exemple man après bi ma ñëwee nekk Sotrac. mooy mooy Dakar dem dikk mhm. dañ ma fa licencié ma tax yàgg nañ ma di ma licencié de ça ah <laughs> <laughs> euh, ndax bi ma ñëwee euh, dama ñëw fekk syndicat CNTS moo amoon mooy syndicat bi bokk ci PS donc ci mm. bokk ci le pouvoir d'accord moo nag li PS di def man ma bokk ci syndicat bon entre parenthèses d'opposition mhm. euh, centrale boobu nag Euh, Mbaye Guèye moo ko jiite woon moom it mu ngi may dégg maa ngi koy nuyu. yal na yàlla bàyyi ko fi aussi lu yàgg. Euh, donc ma nekk la seule cadre d'ailleurs ci centrale wala euh, d'opposition bi oui. bien sur après nag bi ñuy def les réajustements ñu boole ñu ñun ñun ñëpp dàq. <laughs> licencié licenciement abusif d'ailleurs boo xam ne inspection du travail condamné woon na ko. Mm-hmm. ndeysaan li ci metti mooy boobu xale laa xam j'étais jeune. après man uti naa beneen liggéey ba mujj dem nekk fonctionnaire international. international mais bëri na ci ñoo xam ne seen seen famille noonu la yàqoo. Mhm. parce que mag lañu woon amaatuñu liggéey. wala euh, donc euh, injustice yàgg na fi. Mhm. dossier ba traîné ay presque vingt cinq ans kenn vidéo ko. Mhm. voilà am na suma benn collègue aussi xam naa mu ngi seetaan ñu naan ko Mbodj maa ngi koy nuyu bu baax. voilà moom mu ngi mbaaw ci groupe boobu la bokkoon groupe des cadres. mais après nag ci la continuer liggéey pour euh, l'ASWEF ONG et ensuite euh, am une carrière internationale. d'accord voilà. Euh, mais licenciement boobu boobu c'était pour voilà pour activité <laughs> d'opposition rek donc. Euh, d'accord donc ñu seppi sànni. jamono yooyu 90 euh, di wàcc pour 2000 nga dund loolu benn parenthèse rek la ak moment bi boo ko comparé. qu'est-ce que léegi il faut reconnaître que léegi liberté démocratique yi avancé nañu lu bare bare bien que ñu ngi régressé ci li may gis parce que léegi nii rek euh, ña demoon di manifester ci bundu ambassade euh, Tunisie ci la traitement bi ñuy def suñu suñu mbokk yi en Tunisie euh, ñu jël leen yóbbu commissariat mm-hmm. dont mon ami le l'honorable député Guy Marius mm-hmm. donc loolu daf may fàttali la amoon ca jamono yu njëkk ya defoon nañ ne dépassé nañ ko defoon nañ Sénégal dépassé na loolu taxaw ci bundu ambassade dikk di di di ñaxtu lu tax der yu suñu suñu mbokk africains yi ñu leen di traité ni leen di traité mhm. ak propos racistes yi nga xam ne président Tunisie bi am na ko voilà taxaw di manifester rek ñu gàddu la yóbbu commissariat yooyu dafa dafa di méthode yoo xam ne yi amatu vraiment euh, dafa xew yi waratu gëmoon nañ ne dinañ dootul loolu dootul amati daal donc euh, bien que démocratie bi avancé na bu baax a baax mhm. mais li may ragal mooy di gis ay recul li ma koy gisee ñuy tëj ñuy suspendre ay ay télévision Euh, voilà arrêté ay jeunes ak yu ni mel mhm. euh, loolu moom euh, vraiment dama ciy am ay inquiétude parce que loolu ci année quatre-vingt-dix lañ ko daan gis defoon nañ ne nag après maintenant c'est révolu loolu jeex na alors mhm. euh, yaa ngi liggéey yaa ngi milité tàmbali nga nekk fonctionnaire international mais aussi vous êtes maman oui oui oui <laughs> waaw kii kii Dior la def naa elle deux mois euh, moom ci boppam liir bi am na am na doom bu am quatre ans donc euh, àddina day. léegi maintenant vous êtes grand-mère voilà <laughs> c'est ça euh, voilà c'est la vie aussi. quest que cela vous a fait nga gis sa premier doom. ah mais loolu kay c'est le bonheur suprême. ci côté jigéen ak ci côté góor d'ailleurs. voilà gis sa takkandeer moom euh, voilà def naa ne amul expérience bu ko. gën a extraordinaire mm-hmm. après da ngay am le sens des responsabilités aussi ndax am na bakkan boo xam ne ci yow la dépendre xam nga loolu mm-hmm. bokkul lag nga yore sa bakkanu bopp rek voilà euh, kooku day yokk sa responsabilité euh, mais bànneex bu mag a mag a mag la aussi voilà donc ñu ngi saluer toutes les maires voilà di ñaanal aussi celles qui voudront être mères mm-hmm. yàlla may leen njaboot euh, ñu def ci njaboot gu barkeel la ñëpp di ñaan aussi voilà d'accord alors euh, PM euh, ñu continuer li nga xamante ne cette fois-ci moom mooy carrière bi euh, nga nekk euh, yaa ngi yaa ngi ci militantisme bi même si cette fois-ci un peu sa casquette fonctionnaire international da ci day xaw a sensible nga continuer li nga xamante jéey bi à travers le monde dem nga Burkina dem nga yeneen gox dem nga New York mais mu am nag benn moment ci histoire politique gu Sénégal ki nga xamante ne maître Abdoulaye Wade def na deux mandats ñu ngi jëm li nga xamante ne moom mooy atum 2019 comment c'est fait comment c'est fait 2012 oui. <laughs> mooy deuxième mandat chef de l'État 2012 oui. comment s'est fait le rapprochement entre vous e le président l'actuel chef de l'État Macky Sall euh, waaw même président Abdoulaye Wade avant muy ñëw au pouvoir boobu maa ngi nekk en poste à Abidjan nekk fonctionnaire international booba bokk naa ci coordination opposition bi à Abidjan déjà mhm. euh, maa ngi fàttaliku euh, jour où euh, élection premier tour Mody Niang benn benn mhm. ñoo añandoo ca sama kër boobu ma nga ñëw mission ñoo añandoo jour boobu pour vous dire que xam naa ko bu yàgg yàgg yàgg. bu mm-hmm. yàgg am taxawaay la moom it. Euh, donc commencé wul suma intérêt commencé wul rek ak euh, ak l' élection du président. Euh, en 2012 en 2012 déjà mm-hmm. en 2000. Mm-hmm. daanaka maa doon coordonné l' opposition à Abidjan étant fonctionnaire international. bon doo ko def à <laughs> haute voix. parce que day am incompatibilité mais man maa ko doon coordonné foofu ndeysaan. ak euh, voilà ña fa nekkoon suma benn euh, jarbaat bu ñu naan Pape Ndiouga Guèye moom léegi ñibbisi na mu ngi ngelu mm-hmm. <laughs> période boobu it mu nga woon Abidjan moom it maa ngi koy nuyu euh, président Macky Sall maa ngi ko xam ci justement année 2000 yooyu moom moo doon le responsable de cadres du PDS man ma nekk ci cadre ànd jëf yi du ma responsable sax mais ci bureau cadre yi la bokkoon mm-hmm. à l'époque donc bu ñu daan def les rencontres euh, des cadres euh, voilà euh, ci lañ daan toog ca lan voilà et puis ensuite ñëwoon na après bi mu nekkee premier ministre ñëw na New York boobu man maa nga fa nekk voilà di fa liggéey à la à la au siège. Mhm. nekk fa directeur ñu recevoir ko et cetera boobu moom mu ngi doon waaje diriger campagne u président Abdoulaye Wade. au législatif deuxième mandat bi voilà. ah d'accord législatif d'accord yàggul ensuite nag euh, euh, voilà mu am ay tolof tolofam euh, ma gis ko ne bon lii aussi jaaduwul c'est de l'injustice et puis am na profil bi war nañ ko jàppale man maa jël initiative jàppale ko woo ko jël congé sans solde ñëw campagne et puis mu gagné non non non la ah, demee et puis dama jàppoon ne oui oui oui bien sûr parce que xamante woon nañ gisonte woon nañu déjà bi mu fa ñëwee et après man maa ko woowaat fekk moom mu génn ci lépp lu doon président Ablaye Wade. taxawal parteem taxawal parteem euh, ensuite euh, bi mu ñëwee New York di seet ay militants am ñu toog waxtaan et cetera ñu liggéey ci programme am. mu yoonu yokkute nekk directeur de directeur de cabinet de campagne am. Mm-hmm. voilà ba yàlla def li mu li mu def. bu ñoo bokk génération parce que benn at la ma magee. Mm-hmm. donc loolu it andi na andi na rapprochement. Euh, xamoon naa aussi président Moustapha Niass. président Moustapha Niass euh, euh, euh, voilà suma xaritu papa la woon sama papa ko magoon d'une voilà d'une dizaine d'années je crois xamoon naa ko aussi surtout son collaborateur proche son numéro 2 doon Madjeyna Madjeyna Diouf mhm. doon mon oncle vraiment moom it yàlla na yàlla xaare ko àjjana amiin amiin voilà moo wàcc liggéey bu yàggul mhm. ma borom këru Eh, suma magu borom kër yàlla eh, binu moom it mhm. maa ngi koy nuyu mhm. binu Coulibaly doon sama xarit mooy grande sœur sama borom kër donc Sénégal dafa dafa tuuti mhm. eh, moo tax ñu ciy doxal lu baax di ci wax lu baax di ci dox lu baax mooy mooy li parce que ñu nekk opposition wala ñu nekk pouvoir wala ñu nekk société civile am na fu ngeen di toog yéen ñëppay yéen ñëppay daje yéen ñëppay bokk mais bi ngay liggéey ak Macky jamono jooju ci campagne bi. Mhm. ngeen def face à euh, un président sortant est-ce que foogoon ngeen ne moment boobu amoon ngeen chance jël li nga xamante ne moom mooy moom mooy pouvoir bi PM. ah c'était défi la woon ah défi la woon parce que ñu bëri boo leen doon wax naa leen waaw yéen nu ngeen mën a gagner fii. nit ñi ñu doon gis mooy. parce qu'il y avait d'autres candidats ah Idrissa ak ñu gën a yàgg sax ci opposition bi. parce que président Macky. Moustapha Niass sànq yaa ñoom. deux mille deux mille neuf la génn. Mhm. ñale génn nañ depuis deux mille un donc booy seet moom mujjee ñëw ci opposition bi donc ñu bari dañ doon jàpp ne voilà du mën a nekk mais yàlla nekkal ko parce que bon gëmo gëmoon nañ ko dem ci et puis euh, laaj baatu askan bi ñu jox ñu ko et aussi nguur yàllaa koy joxe. loolu it euh, ci suma conviction la mais doo tëdd nelaw rek yàlla woo yee la jox la ko da ngay dem voilà def la nga ca war a def. tataan eh, baatu eh, askan bi euh, bi ñuy proclamer résultat yi ngeen yenn échange yi ngeen waxtaan moo boobu seen siège mi ngi woon ci devoir liberté liberté six yi mhm. euh, qu'est-ce que vous êtes dit yow en tant que directrice campagne am ak moom mi nga xamante ne moo doon sa leader ah mais yooyu nag dafa ci am le confidentiel <laughs> loo xam ne lii euh, bon amoon yaakaar rek ñun ñëpp ah. parce que boo xamee ne da ngay aussi sans sous responsabilité day dal di dugg parce que voilà da ngay gis l'immensité de la tâche aussi ouais. euh, voilà et puis très rapidement yëf yi day accéléré foog ngeen former gouvernement euh, voilà euh, man suma njaboot ña nga woon New York mhm. man kenn fi ne woon euh, yow ci sa bopp nga xalaat ni waaw man liggéeyu jàmbur ba ma yoroon lu ma koy lu ma koy lijjante war naa war naa fa démissionner war naa toxu war naa indiwaat xale yi xale yi aussi ne la waaw mais ñun Euh, peut-être bëgguñu dem voilà alaaji bi it moom it nekkoon ci activité am nga war ko convaincre pour mu ñëw. voilà nga war a réorganiser euh, tout cela. ah oui tout ça tout ça tout ça parce que ñu ngi woon états euh, depuis dix ans voilà mais ñu am ci aussi voilà satisfaction parce que bon ñëw liggéeyal sa dëkk amul lu ko lu ko gën. alors dama lay wan très rapidement. photo njiitu réew mi. boo koy xool est-ce que vous avez des regrets. aucun regret après di ngeen àndee. non aucun regret je n'ai aucun aucun regret euh, man dama jàpp ne xam nga jamono ju nekk rek nga da nga def li nga ci war a def euh, je pense que euh, voilà amoon nañu yaakaar ci moom gañe nañu liggéey na la mu waroon na mën a liggéey am na loo xam ne mënoon na ko doxale neneen loolu aussi ci lu ñuy wax la mais non amuñ ci benn regret avancé loo na Sénégal aussi ah. ci wàllu yu bari. Mm-hmm. Euh, waaye bu moytuwul loolu yëpp danañ ko fàtte. loolu nag jigéenam sax a ko koy wax donte moom <laughs> mënuñoo wax ne <laughs> may fi fi may jaarale <laughs> fële fële càmmeñ di jaarale. jigéenam waaye mën naa jàpp rek ne ba tey moom jigéenam la. Uh-huh. Euh, vraiment li ma koy conseiller mooy mu delloo si xelam xam ne euh, voilà jot na fee liggéey bu mu yàq wayam. am na foo xam ne bu fa àggee kenn dootul fàttaliku la mu liggéey voilà donc loolu it euh, képp ku mës a am expérience ak moom comme ni ma ko amee euh, loolu la ko war a conseiller. d'accord c'est-à-dire ngeen ngeen wa ngeen am langage vérité entre entre yéen ñaar loolu moom moo war a sa taxawaay euh, mais jamono jooju parce que juste premier gouvernement bi daf la jox li nga xamante ne moom mooy wàllu yoon justice. Mm-hmm. Euh, ñu tàmbali nag li ñuy li ñu naan euh, traque des biens mal acquis mais ñu bëri foofu dafa am benn étiquette buñ la étiqueté moo tax ñu tàmbali woon fi nga xamante ne moom mooy sa jaar jaar ba léegi mooy koo xamante ne dafa dafa xaw a dur euh, des fois du ñàkk nga dégg commentaire yooyu qu'est-ce que cela vous fait PM non duru ba sax ndax bëri naa ay man nag ku mën a téye kóllëre laa man ci loolu bu ma doon bàkk sama bopp loolu lay njëkk a jàpp man xarit ya ma amoon ba may ndaw ñoom laa am ba tey ña ma xamoon ña ma euh, voilà donc euh, non xamat fulla tax taxul nga nga bañ laa biir mm-hmm. ñaar ñi la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy confondre man bu ma ñëwee nekk ministre de la justice euh, ci instruction au président de la république ci ngay liggéeyee ministre loolu moom ñëpp xam nañ ko mm-hmm. ministre bu deful lu président bëgg nga def ca ngoon sa da wàcc loolu moom kenn <laughs> xanaa ku ñàkk a xam gouvernement xam nga ci loolu te bon gouvernance aussi da doon loo xam ne lii moom ci boppam moom président Macky Sall waxante woon na ko ak askan wi. den ko diggee woon voilà. Mhm. bokk na ci li tax ñu fal ko. Mhm. booy seet yéen a ngi fàttaliku boobu valise u Ségura yi ñoo amoon ak scandale bu nekk amoon na fi ci jamono yooyu. Sénégalais yi aussi bëggoon vraiment ci wàllu gouver bonne gouvernance ñu def fi ay progrès mu jox ma ci ay instruction ñu commencé liggéey lañ doon liggéey. Mhm. Euh, ki nga xam ne mooy doomu président Ablaye Wade dem procès euh, voilà ba li ci am am ci euh, noonu la liggéey buñ la ko joxee da ci ciy def li nga ci war a def buñ ma joxoon je sais pas moi ministère de la culture aussi noon laa ciy saware loolu laa ciy defee pour mën a fi nga ciy def waaw waaw même Pastef bi laa ciy def. alors ci sa wàllu liggéey en septembre 2013. Mhm. Euh, je vous montre une photo boo xamante ne xëy na doo ko fàtte ndax moom moo indi Euh, turu euh, premier ministre bi nga wuutu ci fi nga xamante ne moom mooy primature mm-hmm. du mbay qu'est-ce que cela vous a fait nga nekk ñaareelu jigéen ci histoire du Sénégal yëpp après Maman Dior Boye 2010 après 2011 2013 nga nekk ñaareelu jigéen bu jiite gouvernement waaw waroon naa am ci diggante bi jigéen ñu bari d'ailleurs euh, je pense mais da jàpp ne responsabilité la comme liggéey xam nga man comme dama musa liggéey boo ma joxee poste rek la may njëkk a seet mooy ana yoon wi nga may jaar ba am ci résultat donc day yokk sa responsabilité nga gën a yokk euh, voilà euh, jom ji mhm. voilà euh, di liggéey ba xaaji guddi loo mën a def rek pour am résultat et vous de descendre à quelle ah non à des heures indues hein deux heures du matin poste yooyu moom voilà amul amul heure loolu amul heure mhm. voilà da nga ciy def sa kéemtulaayu kàttan parce que suñuy problème mu réew bi aussi dafay dafay bëri te tar donc boo ci bëggee résultat moom foog nga foog nga liggéey ci lu lu yàgg yàgg yàgg alors jigéen premier ministre jigéen mère de mère au foyer euh, naka naka nga doon def. lu jafe dafa allier les deux. parce que yaa ngi ko doon def fële mais là la charge il est encore beaucoup plus lourde. waaw mais day fekk sa doom yi xaw a mag tuuti bu ñu ndawee nag ci lay gën a metti ak sa borom kër di la jàppale. voilà moom moom. Euh, vous avez bénéficié du soutien de votre mari oui oui euh, tout au long tout au long de tout li ñuy wax ni yëpp soo amul borom kër bu la mën a jàppale day day presque impossible donc moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla fay ko ko ci yow. amiin amiin El Hadj Oumar. Euh, <laughs> voilà moom it ku ma jàppale la. parce mhm. que sinon c'est pas possible. d'accord alors la dernière photo bi ma lay wan ndax waxtu bi daf ñu commencé sa xoj li ñu dese bëriwul mais il faut que ñu ñëw moment bi. ci sa actualité sa euh, en tant que cette fois-ci euh, présidente li nga xamante ne euh, moom mooy peut-être futur parti bi ñuy bi ñuy xaar wala leader futur parti bi ñuy xaar da nga diriger waat cette fois-ci dañ la dénk beneen campagne muy celle des législatives toujours ak sa parti muy fi nga xamante ne moom mooy APR mm-hmm. bi ngay def campagne bi est-ce que euh, PM xalaatoon nga peut jamono ji ñàkk déggoo dina am yow ak sa càmmiñ waaw mais àddina yi demee noonu ah da nga ciy dem rek ak mooy li ma la wax bu ñu la joxee responsabilité da nga ci dem ba jeex li xale man loolooy sama personnalité noonu la ma yàlla bindee donc euh, foo dem rek da ngay da nga ci dem à cent l'heure à pour bëgg rek indi ndab man dama dama bëgg di am ndab voilà donc euh, noonu noonu laa ko gisee après bon comme politique aussi dangay xam ne dara wóorul voilà euh, mais comme man aussi bon euh, man lu ma luñ jàpp rek bu nu waxee ba jàpp ba tënk rek man loolu lay jàpp voilà luy luy luy dëñ du doon ci man loolu it euh, noonu lañ ma yare aussi mhm. loolu lañ ma yare ne sa kàddu boo ko joxee deewal ca sa fa fa nga bàyyi sa kàddu loolu laa xam donc da ngay dal di dem voilà dem ba jeex kon pour yow war dafa am. ah waaw ok amul amul amul amul beneen nuñ koy tuddee mais comme mooy njiitu réew mi du ma ko du ko waxee noonu euh, mais li nu li nu li nu li moom xam na ko bon loolu amul mais pour man ma nga sama ginnaaw bu yàgg yàgg yàgg. d'accord. ya loolu loolu moom. xanaa toog di waxtaan yow nii rek sax tax ma ci ma ciy ñëwaat mais boobu da di da di livre boo xam ne tëj naa ko. bu yàgg yàgg na. yàgg na jàll ci leneen nag bien que yàggul parce que six mois ci ginnaaw rek la woon. Mhm. mais da ngay jàll ci beneen ci beneen étape ci sa sa dund. et puis et puis voilà sans sans aucun regret aussi. désormais yaa ngi continuer li nga xamante ne moom mooy sa sa yoon. Ah. ci opposition. Ah. ñu jëm ci deux mille vingt quatre. Mhm. mais ba léegi dañu am ay réalités sociologiques yoo xamante ne c'est un peu difficile. Hmm. nga bugg nekk njiitu réewu Sénégal. foog nga ne dina dina nekk lu yomb wala PM. nekk jiitu réer sax moo yombut amut ci góor wala ci jigéen lu me lu jafe jafe jafe la lu ñëpp di wut eh, nga koy wut moom kooku nga doon góor wala jigéen moom day jafe. d'accord kooku di benn. Mhm. ñaareel ba eh, bu dee ci wàllu jigéen man li ma gëm man personnellement. Mhm. mooy eh, du problème mu jigéen wala góor lu sax problème mu mag wala ndaw. Mhm. problème mu taxawaay la problème mu ambition la problème mu vision la mhm. looloo ci am te sénégalais yi nag man njort naa ne euh, mën nañoo xàmmee voilà doo doon góor rek ñu jox la de parce que góor nga de doo doon jigéen rek aussi ñu jox la dañuy xool bu baax ndax mate nga ko gis nañu fii ci communes yu bare bare bare ah. euh, am na ci ku koo xam ne <laughs> maire euh, def naa Géejawaay la def naa mooy mooy soxna si Mayekor. Mhm. voilà Khady Mayekor c'est une jeune dame. oui bu ah, góor si ñamu ñamu ñamu ñamu jàkkaarloo woon yëpp ay borom yi laafa la ñoo euh, yu ni mel. et ñu am ndombol tànk am am ay ndombol tànk boole ca. Mhm. moo gañe mooy maire ba. voilà loolu it firnde la rek ci lu mel noonu euh, amoon na benn maire boo xam ne bii mooy soxna Yaku Kan bon nekkatul maire mais à l'époque mu ngi woon digg Bambey département Bambey ci ville boo xam ne sax euh, ville religieuse la woon. Euh, moom moo doon moom moo doon maire bi foofu ci département Bambey euh, donc jigéen fii def naa ne bu nu wóoloo suñu bopp dinañ dem fu sori. xanaa wóolu naa sama bopp aussi. jàpp naa ne une <laughs> solidarité aussi entre ñun. waaw waaw solidarité et du jigéen ñi rek ay woteel jigéen ñi ñoom kay ñoom laay bëgg sax ñu gën maa woteel pour pour démontrer que jigéen war naa mën. Mhm. parce que nag jàpp naa ne man fi ma jaar yëpp aussi wane naa ci li ma mën. mais PM nga koy defee. parce que gis nañ mu xaw a sensible gis nañ la sa communiqué samedi bii nii ci euh, diggante ak parti démocratique sénégalais vous êtes dans l'opposition euh, mais ñu bëri dañu gis ne dafa nekk su euh, benn position bu xaw a inconfortable désormais ban appareil nga war a mun a demee pour briguer suffrage des sénégalais. pour man amul benn inconfort sama choix la amul benn benn inconfort parce que la tax ñu ànd ci rassemblement boobu ñu koy def. Mhm. mooy contre le troisième mandat du président troisième mandat boobu nag wax dëgg yàlla man dama cee ànd ak moom ñuy campagne 2016 wër Sénégal yëpp ci référendum bi ne président Macky Sall ñaari mandat bu ko defee day pare voilà moom it mu wax ko waxati ko waxati ko lu baree baree baree baree bare waa tey bu ñu buggee ñëw ba 2023 ñuy wax waxu troisième mandat loolu moom franchement du lu ñuy mun a waaw surtout que man dama jóge woon États-Unis à l'époque bàyyi njaboot bàyyi borom kër ñëw jàppale si ko contre le troisième mandat du président Ablaye Wade waaw euh, kooku bu ma toogaatee ba dix ans après di ko nangu kooku samay samay doom sax dinañ ma ne maire mère euh, vraiment <laughs> du lii leen xamoon ci yow. absolument euh, donc aw ma ci benn aw ma ci benn amul benn inconfort. Mhm. parti démocratique sénégalais ñoom ñu ngi waxtaan ak président Ablaye Macky Sall loolu ñëpp xam nañ ko. d'ailleurs vous avez parlé de deal. waaw ñoom ñëpp loolu xam nañu ko. assemblée nationale. Euh, amut benn lu opposition di def ba ñu bokk ci direction parti bi la sax laay wax ma militant yi parce que militant yi xamuñ sax yenn saa yi lay xew direction ba la laa wax waaw buñ nee ñu ngi ubbi dañu bëgg rassemblement bu yaatu société civile parti politique opposition contre le troisième mandat nga ne noonu du ma ci bokk parce que Mimi Touré ngi ci waaw quand nag sénégalais yi nag quand nag <laughs> waruñu foyee seen xel quand même. absolument voilà waruñu foyee seen xel ñoom parti démocratique sénégalais am nañu droit ànd ak président Macky Sall bu leen neexee. am nañ ci droit mais nañ ko assumer taxaw ci télé bi wax ko waaye bëgg a jël ab Mimi Touré def ko raison xam nga loolu c'est pas sérieux voilà ba noppi ñu bàyyi sot soto bi diggante président ànd ak Karim ab parti politique ci ab soxna te mënaluñ ma dara dax d'ailleurs dara voilà. dañ daan gis kay xanaa ay ji ay góor ay jigéen di dajaloo di jéem a sotoo benn góor waaye da gis góor góor góor ñi ñooy sotoo benn jigéen te maa ngi nii <laughs> jàkkaarloog ñoom euh, quand même parti politique bureau politique amu leen dara lu ngeen waxtaane waxtaane wu leen situation réew mi waxu leen ak président Macky Sall ne warta def troisième mandat parce que constitution bi mayu ko ko parce que baatam ba mu joxe woon mayu ko ko ngeen ne non du ñu bokk ca rassemblement boobu parce que Mimi Touré ca nekk te lu tax du bokk ak moom ca loola mooy parce que moo condamné euh, Karim xam ngeen ne condamné wu ma Karim Wade ay tribunal tribunal mooy mooy mooy condamné. Mhm. tribunal ay condamné te ba ñuy condamné Karim si euh, Sidiki Kaba sax doon moo doon moo doon moo doon ministre de la justice bi bu ñu amee ku ñu war a mere mooy ka jox instruction ministre de la justice mooy président Macky Sall mii ñu toog di am ak am kon négociation secrète xam nañu waaye comme foog ñu joxe benn argument parce que mu nooy waxtaan ak nit ki ba noppi ëlbatiku naan ko waroo def troisième mandat kon xam nga yëf ya jeex. pour yow kon dañ def genre bouc émissaire. mais raison bu taxawul la loolu kenn mënul jël loolu au sérieux kaay ñu wax ci waxu réew mi liy yàq réew mi troisième mandat nga ne non du ma ci bokk parce que diw ci la bokk ñu ne la waa loo dajale gi nga ne non diwoo ma tëjoon te président de la république di jox instruction kooku ñu kaak ngeen xam ko am nañu droit ñoom ànd ak Macky Sall bu leen am nañ ci droit. waaye bu ñu nexee bu ñu foyee suñu xel. d'accord voilà te man sax bëgguma du ma personnaliser les questions parce que franchement euh, def naa ne réew mi fi mu toll. Mhm. du suñu personne man wala keneen ñun réew mee ñu war a soxal démocratie sénégalaise moo ñu war a soxal. d'accord alors très rapidement on va revenir à vous ci quelques secondes. Hmm. waxtu wi jeex na. Euh, dañ lay surnommer waaw ci wax jooju ci wax ci wax jooju sax non bon xam nga comme toujours dañuy leeral rek comme ça ñu jàll ci loolu. Mhm. Euh, <laughs> ñoom parti démocratique sénégalais la ma daan dégg sax mooy président Macky Sall moo exilé Karim Wade ñoom loolu lañ dëkke woon mhm. ah waaw mais ka exilé Karim Wade kay du Mimi Touré wala mhm. donc franchement euh, xam nañ ne instruction yi ci la ma assumé ko nag aussi la ma def comme ministre de la justice yëpp dama ko assumé parce que ci wàllu bon gouvernance la dama ko assumé man waaye ñoom it nañu xam ne lañ doon wax aussi sénégale yi ñoo ngi ko doon dégg président Macky Sall moo exilé Karim Wade moo nangam nangam kon franchement bu ngeen bëggee ànd ak président amul problème dem leen ngeen ànd ak moom ku nekk am nga sa choix maa ngi nii maa ngi opposition ñoom am nañ choix wu ànd ak président Macky Sall bu leen neexee la ñuy la la la la la la la jaaduwut mooy nga bëgg a personnaliser personnalisé baaxul xam nañ ne li ñuy wax yëpp vraiment waxu politicien la rek. Mhm. nañu wax ci troisième mandat bi ndax ñoom d' nañ ci wala d' accorduñ ci looloo intéressé Sénégalais yi fi ñu toll nii. d' accord alors bu ñuy revenir at ci yow. on vous on vous surnomme Mimi Mimi bi fan la fan la jógee <laughs> quelques secondes père. <laughs> loolu loolu sori na de euh, maa ngi la doon wax ne su ma su may wayjur ña nga woon euh, France pour yeggali seen jàng. surtout mhm. sam papa. Euh, boobu moom commencé am na njaboo am am am njaboot. Mhm. parce que commencé na exercer comme médecin africain ensuite indépendance am mu dem pour nekk médecin au sens universel du terme euh, sam fekk suma sama sama sama wayjur bu jigéen déjà amoon na ñetti bant voilà donc moom comme foofa dafa metti woon nangam nangam fii la ñëwee donc ce qui fait dafa jóge France man ma juddu si Dakar. ñu bàyyi suma ñaari mag. foofa ak son mais comme da daan dem di jàng ak liggéey ñu dénkaane leen ci ay liñ naan nourrice tubaab de temps mm. sama yaay walla yegg si ak liir bi waaw donc bi ma ganesee àdduna nag ñu woote euh, foofu ci xale yi euh, voilà meeru tubaab bi ne leen ah c'est am ngeen rak euh, Aminata lañ wax ne la tudd mais loolu c'est trop compliqué du ngeen ko mën a du ngeen ko retenir wax leen mimi rek. ah c'est la <laughs> nourrice <laughs> donc noonu laa importé. loolu sax ki ñu ma tuddee. di mhm. sama maam Aminata Aminata Diène. Euh, parce que dama am aussi côté côté lébu. Euh, mooy ki jur ki jur sama yaay kooku loolu nag da ko da ko kaas ba sonn mm. euh, daf ko kaas a kaas ba sonn waaye noonu rek après xama mooy law ba dem le surnom est parti voilà waaw mais Aminata Touré laa tudd <laughs> alors malgré votre agenda moment bi yaa ngi daw yaa ngi préparer sa campagne surtout jëm ci campagne boo xam ne bu am solo une présidentielle comment est-ce que vous passez vos vos est-ce que est-ce que am nga sax passe-temps euh, PM ah day jafe passe-temps day day jafe di nga jéem a sport tuuti ak euh, ku bëgg musique laa aussi. xam ah xam nga gis nga ma ci campagne bi. gis naa ah, may yëngal mbagg loolu rek loolu faisait par plaisir parce que <laughs> mélomane la <laughs> voilà donc ça c'est euh, ku bëgg ku bëgg musique la. Mhm. Euh, ci yooyu ngay ngay mën a nekk ak passer du temps aussi ak sa ay xarit. su ma artiste préféré. suma artiste ne di nga leen a xam de bu dee ci Sénégal. Euh, dama naan euh, diggante Ndiaga mhm. suma xarit bu Kunta Ndiaye suma xarit la mhm. euh, maa ngi koy nuyu bu baax dam naa ma ngi France ñooñu daal lay wax bu dee ci ci soxna yi aussi bon Viviane ki a une très belle voix oui. bon les les plus jeunes xëy na aussi foog ma Euh, di leen gën a di leen gën a bàyyi xel les mhm. rappeurs aussi sont très bons voilà nuyu Red Black moom it suma suma jarbaat la mhm. suma jarbaat la euh, ak ak ak ak ak nag la musique ngoyaan du Saloum voilà bon Saloum Saloum voilà ñoom Khady Mboup ñoom Katy Mbaye ak mhm. euh, ñooñu ñëpp daal voilà bu nag ci wàllu musique internationale voilà rhythm and blues. <laughs> d'accord vous adorez ça. moom la xale yi tuddee après R&B. mais au départ rhythm and mhm. blues la woon c'était ça. voilà ak yu ni mel. alors la dernière toute euh, dernière question boo amoon benn souvenir wala boo xamante ne bu nga ko bàyyee ci postérité fi nga xamante ne moom mooy sa réew Afrique ak àdduna wërngal këpp lan lay nekk PM. mooy ba nga waree taxaw rek nga taxaw. Euh, parce que def naa nit nag loolu lañ koy doyee c'est-à-dire bu nangu jotee nga nangu bu bañ jotee aussi nga bañ euh, ak nu mu metti metti metti euh, je pense que ku mel ni Nelson Mandela noon lañ koy fàttalikoo ñi mës a résister yëpp noonu lañ leen di fàttalikoo euh, voilà ñu ñu jàpp rek ne waaw yow ba nga waree taxaw taxaw nga xëy na loolu loolu lay doon parce que li ci des yëpp après day day passé euh, voilà noonu rek laa koy laa koy war a mën a gisee mooy mën a taxawal sa réew daal mën a taxawal say conviction voilà merci euh, beaucoup su ma su ma pare woon ñu ne ah diw de voilà nitu conviction la woon bon loolu dina ma neex ci souvenir <laughs> d'accord <laughs> kàddu gu mujj gi PM waa di la gërëm di la sant di la encourager aussi merci beaucoup voilà les jeunes professionnels c'est oui. pas toujours facile Euh, di souhaiter aussi vraiment très bonne fête du 8 mars soxna yëpp ñu ma ko mm. waxee mag ñi ba ci ñu ndaw ñi ba ci parentel yi njagamaar yi jànq ji ñëpp daal euh, di leen encourager parce que vie wu jigéen yombul euh, li ngay li ngay gàllank li lay gàllankoor day bëri bëri lool lool lool sax voilà gestion famille gestion sa liggéey goro yi mhm. ñoom ñu ngi leen di nuyu goro yi jigéen yi ñu xawal ñu yërëm ñu yërëm ñu yërëm ñu ji <laughs> laa biir ci ñoom mhm. euh, voilà booy booy jàng aussi euh, voilà yenn saa yi de la vie yi aussi euh, ñoom ñëpp maa ngi leen di surtout encourager wax leen ne rien amul lu impossible àddina moom dara yomb ci mhm. voilà dara dara dara yomb ci waaye ku def jom rek voilà ak ngëm ngëm yàlla aussi da ciy bokk yàlla jàppale la donc yàlla na nu yàlla jàppale ñun ñëpp. merci voilà di nuyu aussi suñu càmmiñ yu góor yi. Mhm. ñoom ñu def ay kado soxna yi. dina ci baax dina ci baax tamit. <laughs> en tout cas merci beaucoup PM. Ah, merci. beaucoup à votre équipe euh, qui vous accompagne. Euh, ñu ngi lay ñaanal yàlla kattanal la dooleel la. Mhm. Euh, parce que c'est vrai jigéen la mais aussi nous sommes très très très fiers de vous. Merci. Ah, et puis on espère que vous allez poursuivre le combat. lu mu métti lu mu métti métti immanquablement kooku moom kooku moom taxaw rek dinañu. voilà dinañ dëfu dinañ dinañ fàttaliku. voilà suñu maam yee ca Ndeer. ak ca Waalo euh, roy ci ñoom rek. jeex <laughs> merci beaucoup ça a été un plaisir. ça tout le merci beaucoup. merci team bi may janoog Issa Kébé Papis Dem aussi ñu ngi koy nuyu. Euh, di souhaiter jigéen ñëpp une bonne fête euh, di leen jox dig daje prochainement incha allah toujours sur cette antenne jërë ngeen jëf. jigéenu Sénégal njaay yéen gàcce nga la ma la leen di njub